mboolem sénégalais yi xam ni lii lu doy waar la lu garaaw la ñu fexe ba ci suñuy jëflante wala li war a doon suñuy yitte bis ni ki tey mooy li jëm ci anam yu mel nii ndax lii mooy réew mi bis bu nekk ñu fenkal ñu ay wax yoo xam ne amul benn solo amul benn njëriñ ci réew mi boo demee ci réew yi nga xam ne tey tabaxu nañu defaru nañu teewul bés bu ne suñu xëyee ci yu mel nii la seen waxtaan di nekk boo bëggee ràññeetle màndarga réew mu dellu gannaaw rek mooy waar réew mu ban yitte lañu am ci liy doxal seen réew nga méngale kook ban yitte lañu am ci li nga xam ne moom lañ tuddee fait divers débat politique bi ci lii la war a porter waaye du Moustapha Guirassy cravate bi mu sol diw oto bi muy dawal lii lañu war a waxee ndax lii tey jii dafa méngoog bës bi nga xam ne ci la ñuy màggal wala dundal bés bi nga xam ne lorange bi gën a mag ci bi ñu xam ci lorange boo xam ne wala ci yi gën mag yu am ci biir géej ci la bokk mooy keroog bi batalo Joola di suux tey mu tombeek moom ñu bëri sax newoon nañ ñu premier ministre warul organiser conférence de presse ci bés boobu ma jàpp ni nag organiser ci bës bi sax dafa am sens dafa am symbolique ndax li waraloon tragédie boobu weesuwul lu mel nii mooy autorité yor responsabilité yor alalu réew mi wala ñu def mbir ma fi ñu ko war a def ak ni ñu ko war a defee ñu ñak ko def ci càggante wala ci teef ba mu jur musiba tay ji ñi ngi wax mbënd mi mbënd bi lan moko waral lan lañu def ci ati yi yépp ci milliards yi nga xamné nañ duggal nañ ko ci dudul li ci ëpp ay nit ko dam sen poos li ci ëpp ay nit ko dam sen ñi ngi wax mbirum yi jël gal gi la ko waral est-ce que xam ngeen ni li gën a métti ci lii mooy mbir mi dafa am ñaari pàcc dafa am jël lu ëpp nëbb ko askan wi muy lu garaaw a garaaw te ministre de la ci wax léegi jël lu ëpp ñu ne la loo jël rek war nga koo bind loo génne rek war nga koo bind nga jël témèr bind ni juroom fukk la jël loolu war nga askan wi war nga ñi nga xamné wul nañu Sénégal ba jël sen alal diko diko duggal ci réew mi donte dañ ñi lebal nak waye ki ngay lebal day fekk nga yaakar ni mën na fay waye loolu benn patch bi rek la benen patch bi gëna graw moy gannaaw bi ñu défé ba xaaliss bi dugg milliards yi dugg moy pexé yi ñi def ñom pour li bëri ci milliards yooyu au ñu yóbbu ko fi ñu waxoon ni fa la war a jëm ñu fexe ba détourné ko dugal seen poos loolu nag ci fan yi di ñëw dañ ci gën a génne ay détails ndax li ñu génne ci alal ci réew mi yéen a ngi dégg ay ay ay ay ay ay milliers de tonnes de de kilos d'or loolu lu tuuti la ci li ñu génne ci réew mi te lépp nag ci alalu réew mi la lépp ci alalu réew mi la waaye foofu loolu fu mu jóge xaalis bii ñuy wax waroon dugg fi mu war a dugg ñu dugal ko feneen fu mu warul dugg ba pare nax sénégalais yi nax suñu partenaire ne leen jëluñu xaalis bu toll noonu waaye lu gën a néew loolu la moo tax débat bi ci lii la war a porter peuple bi laay waxal bu leen kenn divertirati ci wax bu amul solo lii moo tax seen Sénégal nekk ci niveau bi mu nekk lii mooy suñu défi ñun moo taxoon mu jaadu balaa ñuy dem fii fukki fan incha allah ndax dégg naa gars dañ amuñu programme que projet bi amul ñoom ñu koy wax sax gëmuñu ko ndax ñoo gën a xam ni projet bi am na waaye lépp dañ koy teg ci taw fii fukki fan gën saa gudd suma jumul danañ ñëw andil leen maintenant projet bi nga xam ne moom lañu ñu woon ci programme mu président Bassirou Diomaye Faye ñu andi leen naka lañ koy farañ fàccee pàcc par pàcc ak naka lañ koy doxalee <coughs> mais mënuñu woon dem ci loola te defuñu lii ñuy def nii muy lu am solo moo tax ñi nga xam ne nag ñooy ndeyu mbill gi ndax temps yële génne nañu livre blanc defe naa ñun suñu génnee livre noir très noir lay doon waaye ñi nga xam ne ñooy ndeyu mbill gi ñoom nañu génn tontu bu dee li ñu wax amut ndax lii def nañ ko ba mu pare ñu partagé ko ak suñuy partenaire Fonds monétaire international jot na ci Banque mondiale jot na ci la ñu war a def def nañ ko te lu nit mën a vérifier la ci anecdote bi élection bi passé boobu ñu ngi fii hôtel Azalai président ne ma il faut ñu wax ak ministre des finances doo ko woo ma laajte numéro am woo ko ne dañ la soxla mu fekkuñu ñu Azalai ñu ñëw daje foofu boobu amoon nañ suñu njort ba pare waaye bi mu ñëwee xam ni caaf xëm na ba noppi ci biir waxtaan bi la ñu ne way det bi demewul noonu dañ koo xaw wàññi déficit bi dañ koo jaxase waaye demewul noonu ñu ne ko waaye yow loolu noo ko ne bind ci budget bi ba noppi ñëw fii taxaw naa ñu dem ça veut dire que su doon yéen yéen a jàllaat boo moytul Sénégalais yi duñu gaaw a xam ni nii la demee te balaa ñu koy yéeg rek mooy c'est trop am na sax masse salariale bi te boobu ba léegi service ministère des finance ñi continuer di jeex ci biir budget bi ndax dañ koo tasaare dugal ko ci ay lignes yu bëree bëree bëri ba nga xam ne jafe naa dajale loolu nag lu garaaw a garaaw la moo tax ñoom ñi nga xam ne defe naa ñoom rek a war a wax fi mu toll nii ñi jaar fii ci ministre des finances Amadou Ba di Abdoulaye Daouda Diallo di Moustapha Ba ak ki leen doon sant muy président Macky Sall ñoom rek ñoo mën a taxaw layoo imma ñu nangu ni nii la demee wax nag li tax ñu def ko imma ñu ne demewut nii nañu génnee

ci tey ak dal brique après brique boo buggee am kër gu dëgër bu dee tappale nag noonu mënoon nañ ñëw def lii ndax bi ñu toogee fu la bayeur di jóge yéen a ngi gis image yi chaque jour ñu recevoir des bayeurs yu jël seen jet privé ñëw waxtaan dem te kuñ ci waxuloon lii ne la ñëwal dugal sa xaalis léegi mu andi xaalis bu dul jeex bi ñu toogee léegi xaw ma ñaata offre spontanée la jot suñu neexoon ñu nangu ko ne parce que dañoo soxla gaaw-gaaw sénégalais gis ni tabax nañu ñaari ñaari tali ak ñetti teen waaye du noonu lañuy ñuy tabaxee réew moo tax peuple bi ci boppam moo war a jóg ci niveau boobu waaye mbokk yi lii garaaw na man dama cee am nakaru xol parce que ñàkk bëgg sa réew mënul weesu li moo tax mënuñoo woo askan wi ne ko nag li ñu yàq bëri na foogoon nañ ni tool gi ñuy jox dangay ñëw rek bay ji ñu ñëw ndekete forêt classée lañ ñu jox faw rek nga am liggéey bu bari boo def doog a mën a ji waaye ñu ñu dugal ci loolu il faut balaa ñu naan askan wi ñëw leen ñu takk suñu ndigg ñun ñëpp pour defar li ñu yàq jaadu na ñoom ñu layoog askan wi motax tax damay jox cadeau gi monsieur le ministre de la justice momit mu am lum ci wax rek ci li jëm ci walu gis-gisu yoon ci lu mel monsieur le ministre vous avez la parole. jërëjëf.